ayca salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk internet yi ñuy suivre à à diffère à travers les différentes chaînes wala à travers les différentes plateformes rek tey nag ñu ngi fii si arène nationale am nag tey ndaje bu am solo bu ñu fi dajale muy waa jeune amateur ni ma koy waxee rek nee naa leen léegi duñu waxti jeune amateur mais amateur rek la ñuy wax parce que yaakaar naa ne jeune amateur am na ay mag am na ay ndaw am na ay boromi ko làmb tey nag ñu ñëwaat si nekkul rek taxawaay taxawaay amateur waaye tamit taxawaay taxawaay promoteur tëgg làmb boo xamante ni tey ni ma ko waxee rek man moom personnellement combat bi yaakaar naa ne maa ko gënoon a bëgg waaye seen amateur si seen liggéey si seen xarante ñu jaayante ba tëgg combat bu toll nii combat bi war dox si diggante ki nga xamante ni tey moo di fils de Sadio ñu naan ko Boy Sadio waaw Boy Sadio sax yaakaar naa ne moom la gars yi gën a xam ak ki nga xamante ni rek moo di Batista numéro 2 waaye avant dara ah dañuy dalal euh, Boy Sadio nuyu ko bàyyi ko mu nuyu ñu koy seetaan Boy Sadio ñu ngi lay ziar waaw ange billahi mina sheytan rajim bismillahi rahmani rahim tawakkaltu ala allahi la hawla wala quwwata illa billah mhm. ñu dolli santaate yàlla rek di julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur di ñaanal suñu papa yàlla yërëm ko te xaare ko àjjana mhm. di ñaanal baax yàlla yërëm ko xaare ko àjjana mhm. di nuyu caméraman yëpp di ñaanal sama yaay yàlla guddal fanam sama yaay sama xol yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na bàyyi ko fi ndax lépp moom la lépp moom la waaw di nuyu sama adversaire di nuyu sama waa dëkk nag waa Sadio waa Jolof yëpp waa Taïf waa Bayla waa Gassane waa Thiel xam di nuyu sama maire yi sama groupe maire yi Casa Saint yi maa ngi leen di nuyu di nuyu waa Diamaguène Fass Mbao waa Timlora Mafia ku koy doxay bi xam nga café waa café ga waa Talimam Diarra waa Thiaw Saxir xam di nuyu sama waa écurie nag waa écurie Lamsar di nuyu waa marché caaro yi sama grand xaarim Thiaw business di nuyu waa Colobane mhm. di nuyu Sénégal yëpp bàyyiwuma kenn di nuyu waa SMS boutique di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu ñëpp àq nag di baal ñëpp àq. di baal ñëpp àq combat bi nag mhm. les jeunes amateurs. Mhm, léegi nag les parents amateurs lañ doonatuñu ay jeunes amateurs. <laughs> les parents amateurs. parce que les les amateurs rek. de la lutte rek les parents amateurs. parce que boo xoolee tey jii nii ñoom bu ñu demee ba def lii nii rek. Mhm, doonatuñu ay jeunes. ñu ngi béy seen war ay parents lañ. ñu ngi béy seen war ci làmb. noonu la demee xale xamul dara. bu demee bay def rek. Mhm. di jéngu di def rek. Mhm. xamal ne muy ngi commencé xam dara. mu commencé mûrir ah, kon yàlla leen yàlla jàppale waa am na solo combat bi. di nuyu sama mag yi ne ci biir yëpp ñoom grand Masek père Khadim. Mhm. Gora Ndoye président bi. xam nga di nuyu Modou Baye Fall Mas Koki. Mor xam nga Mor Mor Diouf. waa jeune amateur yëpp bàyyiwuma kenn. combat bi est-ce que yomboon na pour mu taxaw sa côté. waaw combat bi yombul. parce que du woon moom. ok bëggoo ko woon moom. non non du woon dafa mel yéen ñaar da ngeen di xaw a ku nekk day xaw a bële fa nii rek waaye au fond xam nga ne Batista champion la. non bañalu ma ko ndax dañoo bëre terrain gaal gi mu daan ma yàggul dara. même pas une semaine. waaw loolu kon champion nangul naa ko. est-ce que du mer boobu nga fanaanoo moo tax nga jël combat bi kon. man du ma mer ci làmb ku bëre neuf combat. Mhm. jël lu ne ci àll bi. Mhm. kooku du mer ci làmb. man du ma mer du mer ci làmb. làmb làmb la. tontu du forox baa ñu jël Batista mu nuyoo ba pare. la tontu ci loolu noonu Batista nañ la. waaw maa ngi waaw du nuyu ñu fi teew ñëpp. waaw di sant waa Ibsa. di sant waa Dakar rawatina waa Kaolack bu ma dëkk. di sant waa Pikine fi bu baax. di sant suma waa Ikiri di sant suma président Malick di sant moo korsu jël di ko teg si loxo on lufu waaw yëpp di sant ñëpp daal képp kuy bëgg bari saa di sant waa Ibsa bu baax waaw di sant sama groupe bi su mel ne ñoom Galaay ñoom Lat Buntu Pikine waaw ñoom Zez Xaadim Samb waa Dakar ñëpp maa leen ziar waaw ak Max Pa Maguette sant suma paax bu baax a baax waaw di sondaat bu baax sondaat baax a bëggoon nga combat nag xam naa si dara euh, jeune amateur fexe jaayante ba tëgg sa combat looy wax ci ñoom ba pare avant nga tontu sa adversaire. waaw ñi moom gàcce ngaalaama quoi parce que ñoom dañoo bëgg sama combat. parce que c'est pas la première fois ñu may woo di ma jox adversaire façon adversaire bu nekk woo nañ ko ñu bañ hmm. hmm. parce que moom chaque jour daf may woo daf may woo adversaire bu ne ut na bañ waaw man instant yi nag ñëw ma bëri sama borom yi nii nii ba sa kanam ma doo ko yëg soxla ma yëg sax waaw moo lañ jeexale ñoom ñëpp bañ après garaawul dégg nga nekk li wax nee na da nga ko daanoon teere gaal gi yat bi na xam naa ne faaw nga aal ko ko si si ay si ni fàtte naa loolu loolu mbapat la mbapat ak arène du benn sax waaw daanu ma ko nee na ko daan man daanu ma ko loolu du làmb pare naa foofu mhm. combat bi ndax yomboon na sa côté pour mu taxaw. waaw combat bi yomboon man dama ko ne laaj ko bu dee bëgg na rek man bëgg na man du ma delloo avance wóor na yàlla lamb bu gaay ne neex na rek neex na mhm. waaw parce que ñun comme lu mu wax rek ñun dañu bëri ñu gën a diis moom mii taxaw foofu yow yaa nga maa topp fu ne mhm. waaw kon ñun lamb ji tëwuñu waaw sama combat bi jàll ñoo gën a metti kii foofu ku xamul Badi Sane ay combat dina diis moom mais bor bi ne prib kii du ma moromam sax wallaahi azim mhm. voilà nga ne doo moromam doo moromam cër bu baax a baax a baax mais bu combat taxee combat la waaw parce que ma xam naa ko lii muy def nii wax ji moom mën na wax ba Tamba. foo teg leen ko xam ne laaj ko moom xam na ko. Mbaye mm-hmm. Babacar bàyyi ma bàyyi la nga nga posé ko question bi. ayca yi dégg nga nee na du sa morom. non loolu waxi mbër la rek. ndax signature ak wax a ànd. ku bëri neuf combats def huit victoire. Mm-hmm. infra rouge kese daan la si làmb. kon kooku nekkul na day wax rek. Mm-hmm. loolu ay wax mayewu ko. kii xamante nañ bu baax. man bi ma koy fekk Kaolack muy bëre. may topp ci ginnaaw Double Tyson boobu man xale laa est que dégg nga bu baax li ma lay wax. Mhm. kon su taxawee fii naan booy Sadio day wax rek. Mhm. loolu ay waxi kasaw kasaw la rek. Mhm. ni ma joxe cër noonu laa ko joxee cër. mais billaahi wallaahi bu yaakaaree ne làmb ji moo gën a yomb ci làmbam mu ngi nax boppam nee bëri na ñu la gën a diis de. man mi bëri na ñu ko gën a diis daan leen. bëri naa fekk mbër qualification chef de l'État mu ëpp ma fuuf sut ma ma yenu ko ba ci kaw dóor ci suuf loolu ak ñoo ànd. lamb la rek. lamb la rek day wax rek nii wax ji nii fii la yem bu ñu tëjee barrière mhm. man foofu la sama xol di sedd. ba arbitre soufflé arrière ba na la taxaw. daa mel ne am na lu mu yaakaar nag. lu mu yaakaar fekk fi lu ko raw. billaahi wallaahi. Mhm. Batista jege si ma nii après ñu introduire président Gorando dégg nga lim la. waaw waaw. lu mu wax nii dégg naa ko bu baax mhm. moom yaa xam ne xew la dox Kaolack. Kaolack gars yi woo ma. waaw ne ma yàgg Batista de Kaolack. waaw dëkkam dëkkam ëppale ma fa dara. ndax moom samay mbokk jolof-jolof ñoo koy jàppale moom moom moom Kaolack moomu ko samay mbokk jolof-jolof ñoo koy jàppale déggoo li ma la wax Kaolack moom Batista moo lay dalal barki Mouhamad moomul Kaolack man Kaolack laa yaroo Kanda Fodi Bayo double Tyson bi muy mbot Elton stade Kaolack man maa ñëw téye si Jakarta bi bi mu ko mbotee gars yi daw sooku Jakarta bi man maa téye Jakarta bi maa ko génne stade bi moom xam na li may wax bu baax kon fii caméra yoo ko tiim rek mu naa ne di wax nii rek waaw na wax na bàyyi naa ko wax ji na wax wuyu ko

ki mujjee tëgg combat double Tyson. téléphone yi bu génnee léegi ñu woo ko téléphone mu confirmé nëbbatuwuma ci li may wax. barke tëgg seen combat mu woo ma ne ma yàgg Batista 2 ma ko kuy kooku. xam nga Batista nag. ma ne ko kuy kooku. mais xam nga ko. mais après laa toog seetaan ñuy daj ñuy rombante ci mbapat yi. ngeen bëre mbapat lañ mës a bokk bëre. terrain gaal gi. ngeen bëre mais ci mbapat yi nii laa ko doon dégg. kii bëriwul ay combat ren kii bu amee trois combat ci la yem daanagul de déggagul muñal waxuma la muñal de kii man neuf combats laa bëri kii su ma tourné bëri moom kon man maa ko may chance kii trois combats arène la man ma bëri neuf combats na lim kan kan la bëri fils de Max Ibou Ngabou ak ay champion ah, ñaari champion ñett ñooñu daal laa xam. ñett ñooñu laa xam. maa daan caatu Sita. daan Sita numéro 2. Hmm. daan Serko bu jëf soo ko nekk. Hmm. daan Edouard bu Jolof. Hmm. daan Valdo. daan waaw may sama jàmm. waaw yow maa la daan yow. daan Ibra Nga bu daan fils de Max. man fii lay leer. man fii moo ma gënal. dëggal lax man bëri bii moo ma gënal lépp. est ce que lax kii nii su ma ko toobee dana ma def loolu xam ne nekkul sama jëf wax du sama jëf. faa nga tàngal nag parce waaw mais man kenn xamee parce que seen amateur ñoo xewle non non man mu ma taxaw di wax di benn benn di benn loolu mënu ma xam nga xam nga mhm. dina sif ñu a moom ñu mhm. que yéen ñaar dama leen dalal plateau mhm. ku nekk tey reconnaître sa morom ay nga ñëw fekkaat ko mu toog ma ne la booy Sadio nii sa oto bi eng ne ko e eh, xaamee ma la dëmbër borom moo ko moom

lamb nag moo laaj loolu quoi mhm. waaw ñu war a ñëw yëngal gars yi ñu jaay lamb ci après bu ñëwee bëri jeex na jeex na mhm. fii sa maxi moom bëri nañ sama waay la mhm. moom tamit fa laa a jaarale moom rek lamb moom ñun soxoruñ ñun suñu mbër ñun mbër amuñu problème waaw ñun amuñu benn problème dëgg fa yàlla bu dajee moom dañ ko neexal mais bu duggee fii amul neex hmm. waaw man loolu laa xam quoi yee loo koy loo koy loo koy waajal ci biir fii waaw fii ma sant yàlla rek fii moom lu fi xew moom yàlla xam en tout cas man leer wóor naa nekk samay entraînement waaw gars yi nekk sama ginnaaw dama topp anima mhm. waaw mais maa ñaan suñu borom ndam li fi am nag yàlla la wóor mhm. yàlla xam mais maa ngi koy ñaan ndam baax a baax di fàttali tamit eh, sponsor bi ñu gisagum muy entreprise Darou Rahman borom ki nga moom di kanji mhm. daan tëgg làmb ba bàyyi tëgg làmb waaye teewul tey loxoom alalam ñaqam tempsam parce que dañuy gis promoteur buy organiser sax mu ñëw taxawu la si loolu tamit yaakaar naa lu am solo la waaw kañ moom dañ koy sant bu baax parce que boo gisee temps yi lamb nu muy doxee rek nga xam ne mu ngi si dugal loxom mhm. parce que yéen ñëpp seen échec daanaka ñu bëri dama koy gis damay gis mhm. gars dugal kii bi Louga bu baax a baax mhm. nga xam ne mi ngi siy jàpp waaw maa ñaan loolu mu si gis yàlla na yàlla ful bëtam ba mu a looy wax ci Kandji ak waaw Kandji sama mbokkum dëkk la. Mhm. ñoo bokk dëkk. Mhm. ñoo bokk fu ñu jugee ñëw Dakar. Mhm. waaw TDR bi bëril naa bëri naa drapeau am. bëri naa ko yàlla may ma ci ndam. may ñaan yàlla nu mu ñuy sponsorisé nii. yàlla ñu yàlla mayaat ndam lu sedd guy ci kaw ngóor si taxaw. ma am ci kawam ndam lu sedd loo xam ne nii damay àndaat àndaat ak waa ETDR. entreprise Darou Rahman ñu and dem Jolof feete ju victoire. lu mën a xew nag nee na jour si nag moom si biir moom du la may dara. non loolu waxi mbër la rek. nee na daal dina la jàmmal fii. man man mosuma dugg ci biir enceinte bi. Mhm. arbitre siffle mbër xañ ma jàmm. man damay am jàmm. Mhm. wallaahi. rendez-vous. waaw rendez-vous bi ñu jox gars yi rendez-vous rek. Mhm. arène national fii di nuyu waa président ama di nuyu jeune amateur yëpp. waaw di nuyu waat Sénégal rek. di woowaat sama waa dëkk bu baax waa saajo aw ma lu dul waa saajo waa saajo laa am. jolof jolof yi ñoom laa am. xam nga nag. li ko ëmb dafa bari parce que am na vingt cinq village yu ko wër Gassane Thiel Taïf xama xama euh, Afé Linguère jolof-jolof yëpp fépp fu jolof-jolof nekk maa ngi leen woo barki alxuraan ñu ñëw jàpp si combat bi nag hmm. ñaari group ñoo ko moom ñaari groupe waa Tim Lora hmm. ak booy mafia dawalkat sareet waa tim Lora combat bi seen combat la. Mhm. mafia dawalkat sareet yi tamit combat bi seen combat la. Mhm. waaw ak sama booy Jakarta yi sama waa koñ. Mhm. mafia ku koy duxay bi xam mbay donde. waaw waa Cité Mandela waa Fass Mbao Darou Salaam. gën man lamba ma bëgg Bukar lamba la bëgg. barki alxuraan. rendez-vous jour bi kon ah. mm-hmm. nga jege si digg bi nii rek après mbër yi def photo de famille bi laataa ñoo dem mm-hmm. avant dara dañ lay féliciter rek ni ñu koy waxee di la encourager waat si disponibilité bi nga amal làmb mm-hmm. parce que yaa ngi yor sa liggéey bu la neexoon yem si sa métier di seetaan bu làmb ji yaa nga dem ñibbi waaye da nga nekk si jeune amateur di liggéey di doxal promoteur bu am bés nga ñëw taxaw si yaakaar naa loolu tamit lu am solo loo xamante ni tey war nañ ko war a mun a magnifier waat tamit si combat bi nga xamante ni réussir nga pour taxawal ko ginnaaw nga nuyu ñu lay seetaan. waaw asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu di baax di nuyu Babacar di nuyu vraiment caméraman yi fi taxaw yëpp mm. di nuyu presse bi mm, di nuyu aussi tamit vraiment ñaari champion yi mm. di nuyu association ma jiite muy les amateurs di ci jiital suñu père Modou Bey yi nga xam ne mooy suñu kilifa ñun ñëpp mm-hmm. vraiment ak bureau bi yëpp ku ci mel ni Modou Baye Fall mu mm-hmm. nekk commissaire au compte bi Mor Diouf nekk trésorier bi mm-hmm. mu nekk benn association boo xamante ni association bu affilié la ci CNG bi am aussi ay këyit am aussi récépissé état ko état reconnaître ko mu nekk association bu valable yàlla démarré ñu ne ñu dee amateur lañu di assister làmb chaque jour mhm. mercredi sax boo tëggee làmb ñu ñëw seetaan mhm. kon dafay jaaru aussi ñu créer association bi ñu ko créé aussi tamit yàlla dogal boobu ba léegi vraiment ñu ngi ci liggéey bi mhm. vraiment di dox ay jéego di def social di jàppalante suñu biir mhm. démb moo ci mujj dem nañu ba mhm. koo xamante ni mooy Ibra Diouf muy vice président bi doon takk deuxième femme kon loolu maanaam lamb rek moo ko mën mooy wane ni tey champion yi comme ni ñu leen koy waxee nañu bokk ndey bokk bàyyi ndax ñun amateurs yi dem nañ ba léegi amatuñu mbër ñëpp suñu ay mbër lañ fu xew am fu mënti doon ci région yi dañuy dem ak suñu social jàppale la muy bànneex muy naxar kon loolu exemple la ci biir lamb ñuy wax na ñëpp mel noonu ñu bokk ndey bokk baay. Mhm. combat bi nag boo gisee ñu démarché ko taxawal ko. Mhm. mooy dañu ne dañu nekk ci biir làmb mais war nañu dox ay jéego. Mhm. ndax amateur seetaan rek lañ ko xamee mu jeex mu ñibbi. mais jaadu na aussi ñu monter combat dagg licence. wane ni aussi ñun ñu ngi yoo xamante ne aussi mu ngi suñu kanam. ñu ngi ciy liggéey ak bureau bi incha allah bu jotee rek. dinañ ko fësal incha allah rabbi. ngir am ngir am satisfaction sax parce que ay amateur ngeen waaye combat amateur ngeen taxawal nii encore. parce que combat ki nga xam ne mooy Batista 2 aussi comme ni mu ko waxee yàgg nañ di ko bëgg a utal adversaire hmm. xëj na du woon sax Boy Sadio moo nekkoon suñu cible hmm. mais Boy Sadio bi ñu ko waxee Batista rek dafa ni loolu yéen ko teree neex hmm. mooy wane ni ñoom ñaari mbëri aussi yombalal nañ ñu ko parce que tamit yaakaar naa mbëri yëpp ay mbëru amateur lañ kon ñoom bu ñu nangoo bëree ñun suñu combat loolu sant yàlla la vraiment ñu leen di féliciter tamit di leen ñaanal le jour ji comme ni ñu ko waxee rek yàlla suñu borom ma Touba Darou Rahman. Hmm. muy Kandji. Hmm. vraiment mu nekk suñu frère. comme ni ngeen ko waxee mhm. ñu gis ne ci lamb la nekk promoteur mhm. yàlla suñu borom dogal mu dem ba nekkatul promoteur mhm. mais mu retourné jëlaat ñaxam di ko jàppale waa lamb kon moom aussi bu fekkee dafa taxaw suñu ginnaaw nañu monté leen combat maa seen ginnaaw loolu sant yàlla la en même temps ju nuuru laa nga xam suñu frère Jamil Samb moom moo ko moom ku ne xam na suñu diggante man ak moom bi ma ko waaye wax ko kii bi dafa ne ma bu ñeen teeloon a wax sponsors yi njëkk a taxaw mhm. loolu vraiment lu ñu war a fésal la mhm. en même temps aussi tamit ñu ngi sant aussi tamit euh, ki nga xamante ni mooy Abdoulahat mhm. Touba Belel Pëna nekk fii buntu Pikine di koo xamante ni amateur la nekk su suñu biir aussi di ñu jàppale lépp lu ñu xewle muy dëj wala muy muy ngénte hmm. dina jël alalam jàppale ñu ko en hmm. même temps nekk suñu ginnaaw fii may waxe yow ni mën naa wax ni moom moo njëkk a yëkkati xaalis jox ñu hmm. nañu monté leen combat boo lekk suñu xaay bi nga xamante ne moo nekkoon ci suñu kees nga xam ne dafa tëddoon di nelaw rek def ñu benn activité vraiment ñu boole lépp moo waral tey ñu monté combat bi kon moom aussi tubaab beleel pëna ñu ngi koy wax ni moom tamit ci sponsor yi la bokk mais vraiment di nuyuwaat tamit diaspora bi mm. amateur yi diaspora bi ak ñi mm. nekk Sénégal bi yëpp mm. di leen wax ne lamb bu taaroo rek amateur la ndax amateur amul mbër képp ku tëgg rek ñëw na accompagner la xàmmeewul promoteur bu ndaw xàmmeewul promoteur bu mag moo tax bis bi ñu ngi leen ciy woo nag képp kuy promoteur li ko dalee suñu père Gaston ba ci suuf parce que it yaakaar naa ni ku ci nekk tëgg nga lamb ak amateur yi accompagner la kon bis bi seen képp ku nekk ci lamb muy CNG muy presse ñu ngi leen di wax ne bés bi seen bés la lépp lu ci war buñ ci xaar ñu ngi sant leen gërëm incha ni ñu ko yokkul da ngaa wàññi te comme que yokku nañ ah, di nuyu le président Gourando ni ma ko waxee rek Mor bu parcelle wala Mor bu jàmbaar wala Mor bu jeune amateur rek ah Modou Baye Fall tamit ah bi yëpp yëpp yëpp ñu ngi leen di ñaanal rek ah, yàlla oyofal yéen bi kon ñu jox gaa yi rendez-vous benn yoon incha allah aca ñaari mbëri photo dafa bi jégaleen